mboole seen kuréelu xasaayit bi muy tuut tànk yi di góor yàlla yi di soxna yi ñoo yegg si wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله بلال وصحبه ومن والاه وامر الاملاك ايضا بسلام Allez aydın güzel konular ثم لينا وجه خطابة تكون منوان حسن أتابة فقمت خائلا ما امتثالي أمر جميل جلا مثالي يا أمير بأن نسلي مولاي نبينا محمد بابي مولاي إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي قد مقدما يلا وسلام وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في العلي والمعالي عدد مخلومات ربنا العظيم يا من به وهبت الخير علوم وصل يا رحمن وتسلم على الذي تخدم وخلق سيدنا محمد والآل وصحبه في العلي والمعالي وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير جبرى وصل يا رحم وتسلمي على نبيك الشهير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في العلي والمعالي يا من يقود لمسلم مرة عليه عشر خط النبرة ولتواصل البشارة القدر وزعزع عن خير نحو يا قدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من مجمل ناكم خصم يا سلم قسمي بلا انتهاء على عالمي بجهائي سلام عليكم الآلي وصحبه الكرام والمعالي يا من ذات اللسان شمال مذاكرا يا من عمل سيما صلى الله عليه وسلم baama ko ji barke Sëriñ Béthio man la maam Sebe doomu xarit da lay jàngal mbiru daara yi semaine bu jot boole koog liggéeyam boole koog di jàng ñoom ñëpp koo ci tudd fi may wax ak yow soxna aw jëf ko moom it nuuru daara yi bu jot chaque vendredi mu dóor ko mu daanu soxna Obey Thiès nuuru daara yi moom it chaque semaine ay soxna ay sa jaari ba ku tedd ki suñu mbéyte moom dimbali moom defal loo xam ne ci kaw suuf kenn mënu woon def lii nii ci kaw suuf kenn mënu ko woon guddul seen mbéyte fii rek la a am yu ndaw yu toll nii taxaw fii xanaa nga arrêté boo arrêté wuloon kenn lay di jóg par ba fajar jot bis boo wootee billaahi barke soxna Ayda bis boo wootee bu la neexee chaque dix minutes am ku jóg ba keroog ngay arrêté te du jeex ndax li ci mokkal ci ñoom kenn xamul lu mu toll waxuma waxuma waxuma mag ñi de man enregistré naa plus de 567 xale yoo xam ne ñoom ñëpp a jeexal wakaana xakam nañ taxaw kenn ku ne di ko jàng 24 minutes la wakaana kenn ku ne war a taxaw jàng ko dana ëpp ay fan di dem waxantuma ak gone yi ëpp na ko loolu li ma lay wax daawaati géej la woon boobaak léegi xoolal li ci yokkuwaat xasaay boo yëkkati ñu bokk woo àndee xasaay yu mag yi ay sawaay ñu ne lu baax xel yi gone goo amagul ñaar fukki ñaar fukki at di ko jàng mag nekk na ci yoonu murit màggee fi ba toll ni mu toll ba doon muskalaf te téere yi sax musu ko am waxantuma ak di mokkal minal baaxil xadim wala di mokkal jaalibatu maraaxi soxna buur yàlla moo baaxoo woon sax ñaare di jàng yenn xasaay yii waaye ay soxna yu taxaw di waaj maam Moussa mii semaine mu jot vendredi mu tëj kaamilam soxna Ayda Sarr semaine bu jot mu tëj Nuuru Daara yi 1500. waxtaan bi yëpp ñu waxandoo ko jërëjëfati Serigne Mbaye Thiaw jërëjëfaat Serigne Mbaye Thiaw soxna Aida Saliou sunu yaakaaru tey ak ëllëg yàlla na fi loolu lool te gën a wér soxna Aida Saliou mi nu doyloo yàlla na fi te wér ci barkeb seen mbir bi ku tedd ki mu ngi sant jërëjëfati moom ak cant rekk la war suñ mbéyte daf maa wax benn bés nu ñëw di ko jàngal xasaay maa ko waa kuréel cofeel mu ne nu benn bayitu Sëriñ Tuubaa rek da leen a dégg ko nee na da leen a jomb di ko jàng moo tax saa bu nu yeewoo yëgaat ak cant woo xam ni wóor na Serigne Touba amuñu ñoom de Serigne Béthio amuñu fayam waaw barki Serigne Touba xasida yi rek maa ko benn mbokk taal bi ko yëg nga xam ne moom la yàlla di def ci ak jaam ci teewlu xasida rek loolu bànneex gi ci ne wóor na Serigne Touba amuñu ko yorub Serigne Béthio waaw ñu ngi sant wér. ñu ngi sant bu wér mboolem seen jàngkatu xasaayit yi noo ànd ni nu nga bëggee nu àndee ko sax waaw muy Daaru Salaam mat la bul fawsi xel kom kër Serigne Touba muy soxna yi di góor yàlla yi ñun ñëpp ko àndee waaw barki Serigne Touba dama ne leen xam naa ne ñëpp ngeen ci front yi ndax daara yi moom waruñu cee mën waaw waaye à titre individuel ku nekk ci ñun war na jox sang bi xar waaye lii day taar woo xam ne day jëf joo xam ne leer na ma ni moom mbigam danañ ko ci am waaw nañ ko waaj te di ko def nañ ko daan defee nu wut ko nii nu ko wutee àndee ko barki Serigne Touba soxna yi di ay jàmbaar waaye sa kuréelu bopp bii di nekk sa kër gi mooy sa kuréelu fajar bi barki Serigne Touba waaw ñoom daa mel ni ñoo ci jiitu te ñoo ca mën waaye cofeel buñ ko defee waaw si ku tedd ki jànkatu xasaay bi cofeel gi nu am ci yéen wóor na Sëriñ Tuubaa ma de damaa yéen nii nu la soppee waaye noo yëy kat ndax li nga leen defal jomb na leen noo yëy kat nee naa soxna yi yéen de war ngeen a gën a góor góorgóorlu ndax koo xam ni nii mu yeesalee yëfam yii bu la ci loolu rek jomb nañu waaye mu dimbali ñu ba di ñu nab nabiloo ci xasaayit Serigne Touba yi te yoonu murit la ca féete kaw la ci féete kaw gannaaw Serigne Touba mooy xasida yi ku dul Serigne Touba xasida yi ñoo la féete kaw barki Serigne Touba barki Serigne Touba barki Serigne Touba jërëjëf Thioune wóor na Serigne Touba waaw nga dimbali ñu nag ci Serigne Touba soppaloon Serigne Touba. yaakaar noonu Serigne Touba xëstam yi nga xam ne nee na mooy ay kiraamam nga soppaloon ko barki sëriñ Touba am laa jombe sopp la moo jomb ñun xam nga ñu xam bëgg gi ñu bëgg loolu jomb na barki Serigne ñëwee wala foo foo maanaam taalibi bu yow suba teel sa xol di nux nux nga yëg ni soxna ay da bëgg nga ko war ngaa sant Serigne Saliou barke Serigne Touba amel na nu sant Serigne Saliou cant goo xam ni wóor na Serigne Touba amuñu dayoo jëf ko amuñu kattan gi lott nañu ci jëf gi nu na Serigne Touba amuñu xol bu ko jëf barki Serigne Touba ci am gi ñu la am yow rek a jombe yow am la rek a jombe barki Serigne Touba moo tax nu ngi sant bu wér waaw sunu xol dafa sedd waaw nu nu ko àndee sunu jëwriñ ajjuma nga xam ne boobu ba léegi ndeysaan nelawul chaque instant mu woon waaye universel fii fi toll waaw soxna yi góoru yàlla yi kenn taxawul jànkatu alxuraan yi jànkatu xasaayid yi ñëpp koo ci ne rek ma nga feeñal ma nga bëgg a fësal ak yéeneen ci liggéey bii a tax ñu ngi leen di sant wër tey ñaan nga dolli nu waaw dollil sunu sunu yéene yokk nu ak Sëriñ Tuubaa xol yi dafa sedd kéemaan la tey moom dama amat ku tedd gi nee na xolam sedd na. dañoo ci gis cofeel yi sa jàmbaar bi Sall daa bind xasida waaw ci loxoy boppam nga xam ne lii Serigne Touba ko daan defal boppam waaye moo tànn boppam ña ko doon def képp koo xam ni day wax ci mooy bu képp koo xam ni yaa ngi gis xasida gii wala nga ko ci loxo wala nga di ko jàng na nga xam ni fexe ñeel na la àjjanaay sa kër waaw kon sa njaboot gii. Ah. nga nga dimbali leen ba moom mii c'est un intellectuel day jàng ba léegi école la nekk mu ngi góorgóorlu ci kay yi waaye mu ngi góorgóorlu ci ak dënd ah, waaw waaw te jaarul daara lii yow rek ko am jërëjëfati sëriñ Mbecco jërëjëf sëriñ Mbecco jërëjëf lii sëñ Mbecco rek ko am lii jëfi sëñ Mbecco la waaw ah, waaw ku tedd ki nee na lii jëfi sëñ Mbecco la ko fi